ndeysaan Tonnerre ak Youssou Ndour ñaari xale yi ñaari xale yi ku ci nekk sëdd nga sa morom cër waaw attention Youssou Ndour Tonnerre 2 ñoom ñaar ci suuf laa ilaha illallah Youssou Ndour da koo bëgg la attention Youssou Ndour bëgg na koo mbot Tonnerre bañ na Tonnerre 2 laa ilaha illallah Youssou Ndour Tonnerre 2 ñoom ñaar ñi ngi bëre bëre bu rëy laa Youssou Ndour Tonnerre de ñoom ci suuf eh eh eh eh eh eh Laye Ndiaye boo yeeg arbitre bi Laye Ndiaye boo yeeg arbitre bi ci géew bi yéen yéen tër bu ci dee bu daanee maa daan barke alxuraan karim maa daan. ci ban moment nga yëg ni yaa daan. dama ma zongale. ma daw kal bi. mu door épaule at bokk at bokk. bàyyi ko mu wax nee na da nga koo mu daw kal sa tànk nga teg épaule ak fii. premièrement fi may commencé rek. am na lu ko yoon may. bu fekkee dama ko zongale arrière booy demal Aliou Ngingue demal ne. Eh, dama ko songalee moo ko songalee moom du ko yëg ansam moo dem ñaari sengooram moo ngi ci suus di dire ko yaa ngi dégg mënut ta gaawee noonu. moment boobu nga yeg ne daan nga ko yow. moment boobu laa yëg ne daan ma ci sama loxo moom mu ansonné bëre door ma yaa ngi dégg mais foofu moom daan na lii la teg yëgu ko. ans la teg waxoon naa la ne moom mooy loolu.